ni ni làmb ji mujjee. waaw euh, jërëjëf Babacar maa ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu di baalu àq ñëpp aussi di nuyu sama waajur yi di leen ñaanal di ñaanal sama waajur yi fi jóge di nuyu samay njaboot samay sœur samay frère samay jarbaat di nuyu daal euh, askanu senegal yëpp rawatina ci nag waa Louga ak waa Ndande ak waa Kébémer ak waa Boqal donc comme ni nga ko waxee. làmb ji aspect sportif bi effectivement fête la woon te Sénégal gi yëpp xam na ni c'était une grande fête mu tombeek fête de l'indépendance mu am toutes mu amoon toutes les facettes de la culture sénégalaise facettes yëpp nit ñëpp kontaan mu nekk bis bu rëy nit ñi wuy si aussi mais ba nu demee ba ca cëppaa ndaw ga nag kom li nu tuddee woon combat bu mag bi ca man ma mujj ko tuddee un non komba parce que du woon combat kenn gisu fa woon bëre d'ailleurs lu mel noonu maa ngi ciy invité sax CNG bi que ñu xoolaat texte yi pour ñu seet ay yeneen disposition yu ñuy jël ci kaawu combat yu terminé nii. parce que lu ñu war mën a changé ci règlement bi. bu demee nii bu demee nii xam nga jël ay dizaine de million jox ko ay mbër. ñuy def li nu def dimanche bu boo sax am ci ku doon song ak ku ñàkkula song ak yooyu yëpp mais li ñu def dimanche man mënuma ko mënuma ko tekk yëfu champion. te loolu su amee man li may proposer mooy que tey mbër yi ñu desee leen par exemple ku ci ne 20 millions jar nañu dagg 10 millions yi delloo promoteurs yi 10 millions yi ci def CNG dagg ci ay sanctions ay sanctions pécuniaires am ci euh, avertissement yeeg dégâts yu nu def ci làmb ja la ca des ñu jox leen ko parce que loolu loolu mooy yoon parce que mënoo toog ñu fay lay dizaine de millions nga def la neex pare ñu jox la sa xaalis bépp nga dem. Hmm. man bien avant may tëgg tëgg am euh, bis bi jot yóbbu naa ko CNG ba nu téye mais mais CNG ñoo war a def règlement boo xam ne pour sauver euh, amateurs yi sauver promoteur yi parce que loolu suñu ko defee mu wóor la ni am na façon comportement boo xam ne soo ko defee ci làmb da nga perte dix millions wala vingt millions soo fay woon cinquante millions mën ngaa perte soo fay woon cent millions mën ngaa perte presque vingt cinq millions ci reliquat bi doo da nga bëri. Hmm. dana am tricherie du mais est-ce que ci wàllu euh, règlement bi grand ni waruñ ko gën a mën a organiser mu gën a am Pastef ba nga xam ni kenn du taxaw di seetaan faaw songoo am faw dóorante am ginnaaw bëre dóor la. loolu lépp war naa mën a nekk parce que seen CNG bi ci boppam ñoom ñooy ñoom mu amee boobu liggéey kooku man promoteur rek la. CNG moom a yilif moo yilif mbër yi moo yilif rek moom mooy defar règlement yi moo koy soppi war nga ci xalaat parce que li nga doon promoteur justement war na tax. waaw waaw euh, naka noonu tam euh, conseiller nga ci CNG bi. waaw mais xalaat bi ma ci moo tax ma wax la proposition bi ma jëkk a wax ni dagg genn wàllu cachet bi. au delà de dagg bi. waaw sur le plan purement sportif. lan mën a war a organiser waatee combat yi. xam nga mbërum làmb moom xaalis rek la gëm gëmul leneen purement sportif soo ko a ko ay suspension ay yooyu yëpp xaalis bi la gëm la Alioune Sarr daan wax président Alioune loolu tax ñu indi woon fi ay dagg minute dix mille. parce que soo ma saan a tardé ñu ni minute 1000 francs mën ngaa tardé 30 minutes muy 30. muy 30 mais mais mais mais waroo wax ni mbëri xaalis la ñu gëm yow miy tëgg itam xaalis nga bëgg. mais dama gëm xaalis mais dama koy teg ci yoon. waaw xaalis laa gëm ku gëmul xaalis amul yéen ñëpp xaalis ngeen gëm ku gëmul xaalis amul. kon kay bu leen xas yaa ngi liggéey seen kaw yaa ngi liggéey seen non man liggéeyu 30 ans ngi ne yaa ngi liggéey ci kaw mbëri man liggéeyu ma ci ginnaaw kenn su fekkee ni coow rek nga bëgg foofu tey dama ko am man liggéeyu ma ci ginnaaw kenn dama jël ay risque risque yi ma jëlit ñu ko ñemee jël Sénégal bariwul su yomboon. dootuñ nangu nag ñu toll ba deux mille vingt et un. Mhm. ngay waxi perte ak waxi.